ngeen jëf mbokk yi ñu suivre saa su nekk sur la BP Actu ñoo ngi leen di nuyu di leen dalaatal jàmm euh, ci seen émission Actunet ma ci ànd nag saa su nekk Omar Diop sama chroniqueur di ziar naa yaay di amaat mbégte ak kontantement di waat ak yow di nuyu internet yi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre à travers BP Actu et comme j'ai l'habitude de le dire c'est ci ab proximité comme nu ñuy kontaanee di jàkkaarloo ak ñoom di leen indi li nga xamante ne ni moom nga yor ci sa téléphone maanaam li gën a fës yéene kaay tey lu ñuy lool. noonu la demee dañuy daal di commencé suñu défilé rek commencé ko ci ki nga xamante ni moom moo di Babacar Diagne nekk directeur bu CNRA ñoom nag boobu ba tey ñoo ngi wax ci affaire mœurs yi nga xamante ni moom moo nekk ci réew mi waaye d'après émission bi ñu ko invité woon dafa duutaale baaraamu tuuma émission boobee di tës xalaas ak série bu infidèle jàpp na ni daal ñett yooyu dafa nekk loo xamante ni saa su nekk bu ñu waxul ci wàllum violence ñoo ngi wax ci wàllum sexualité. nekk na loo xamante ne nii pour moom doonul lu am impact ci réew mi jàpp nañ ni day nekk loo xamante ne day gën a influencer nit ñi à que ñuy gën a def ci yu ni mel parce que comme ni ñu koy waxee ñu ne Sénégal dafa bëgg buzz bàyyi ma def lii bu ma suba bu ma xëyee ñu revue de presse ma wala ñu tës ma wala ñu xalaat ma raison pour la laquelle moom Babacar Diagne mu daal di ciy def taxaw seetlu boo xamante ne ni am na solo torop mais dañuy ñaan ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais ñu delloo suñu xel ci li nga xamante ni moom mooy dëgg. ndax dëgg moom mooy diine te diine gi rek moom mooy dëgg nañ ci delloo suñu xel ba nga xamante ne nii ëllëg si biir suñu ay nettali suñu ay way dina mën a naay si suñu njaboot noonu la demee ba tey ci li nga xamante ni moom moo gën a fës euh, ci net bi euh, bokk na ci maître El Hadj euh, mi nga xamante ni dañ ko testé woon positif ci jàngoro yo coronavirus waaye alhamdulilah daal nañ koy testé mu négatif maanaam daal boobee jàngoro daal dinay génn ci yaramam ginnaaw bañ ko invité nag ci émission jury bi yëkkati na ay kàddoom di yëgle ni tant que confiné wuñu dakaar ak Touba jàngoro yi coronavirus du mës a jóg ci réew mi ndax jàpp na ne ñaar yooyu ñoom ñoo nekk épicentre bi ñaar ñooñu ñoo nekk épicentre bi maanaam ñaari douane yooyu la feebar bi gën a logé wu. Maître El Hadj dafa def loo xamante ni dañu koy saluer à chaque fois parce que temps yii ñu weesu ñu ngi xamal que ni kilifa yi mu rey yëpp ci réew mi dañu koy am rëyee dem hôpital. kon mën nañ jàpp ni kon moom ba mu ko ba mu ko dalee rëyu dem dem na faju ji ci heure bi mu waree dem moo tax suñu borom muccal ko. ñi mu dal itamit ñu xaw a mel ni moom wala sax mu ëpp leen ndomba tànk ci réew mi bu leen dalee dem leen ngeen faju ji parce que feebar la boo xamante ne nii du yow mi mu day rek lay rey mën na laa dal du la rey mun naa dal keneen rey ko kon nañu sàmmante ak li nga xamante ne nii moom la ñu digal bu ñu dalee rek ñu dem faju ji balaa mu ñoo dal ñu takk suñu ay masque toog suñu biir kër ñu daal di ciy bàyyi xel bu baax a baax waaye fële na la ca diwaanu Ndioro ay homosexuel nag ñoom ñoo organisé woon benn journée dépistage maanaam daal saytu seen yaram xool ba xam li nga xamante ni moom moo di jàngoro ya euh, sida mi ngi ci am déet fële leen gendarmerie fekk def descente daal di leen di ramasser ñoom ñëpp tas lang gi. tas lang ji ci jamono gi nga xamante ne ni dañuy tere rassemblement ñu organiser fa yu mel yaakaar naa ni pour xeex jàngoroy sida. ak noo ko xeexee baax na waaye ñoom dañoo bokk ci ñi nga xamante ne ni amaana ñun ak ñoom bokkuñu jëmukaay bokkuñu yoon parce que suñu diine mayuñu ñu bokk ak ñoom jëmukaay yaakaar naa ni loi la boo xamante ne ni yoon mi ngi koy defal na leen bàyyi rek ñu continuer li nga xamante ne ni moom la yoon may ñu jël. Euh, ba tey li nga xamante ni moom moo gën a fës euh, ci net bi bokk na ci Abdoulaye li mi yëkkati ay kàddoom euh, di ko jëmale ci jeunesse bi nga xamante ni dañoo accro ci application boobu ñuy woowee TikTok jàpp na ne nag dafa jot suñu njiitum réew ah, daal di ciy bàyyi xel bu baax a baax wala sax mu daal di koy interdire comme niñ ko interdire fële na la ci diwaanu États-Unis d'Amérique ndax umpale wu leen ni ah, kii di Donald Trump dafa demandé ah, pour ñu daal di koy jaay application boobu mu mën koo contrôler ci réewam li ci jeunes yi di def waaye bañ ko ko bañalee daf ko daal di interdire foofu ndax jàpp na ni jeunes yi liñ daan liggéey léegi dafa wàññeeku à chaque fois rek ñoo ngi passé seen temps ci TikTok. TikTok nekk na application boo xamante ne ni comme ni ko waykat yi di waxee ne TikTok moo lëmbee suñu réew nekk na application boo xamante ne application bu xale yi di utiliser la application bu xale yi bëgg la particulièrement man dama ko utiliser yow da nga koy suñu caméraman daf ko utiliser ak ki ñuy seetaan moom da ko utiliser nekk na loo xamante ni ñenn ñi dañ ko jàppee. maanaam bu ñu toogee stress bi dafa xaw a bëri ci suñu réew dañuy dem TikTok pour mën a soulager wu pour mën a nekk ci leneen bu fekkee tamit am na beneen inconvénient boo xamante ne nii am na ci suñu réew moom Ablaye li moom loolu la gis mais dañuy ñaan rek lépp luñ ciy def rek même bu dul TikTok ak mboolem application ñu waxtaanee ko mu nekk loo xamante ne nii lu ñuy jëriñ la lu jëriñul Sénégal ñun soxlawuñu ko. Euh, noonu la demee waaye ba tey bu ñu dikkee bu ñu dikkaat ak yenn euh, ci wàllum politique gis nañ ni nag jamono ji euh, ministres yi sonn nañu lool askan bi di kaas seen kaw ndodd yi bari na lool. benn jiitu na ci Aly Ngouille Ndiaye ministre de l' intérieur li ñuy kaas ci kawam bari na jamono ji nga xamante ni jàngoroy coronavirus lëmbee na dëkk yi ba ñu tëjee li nga xamante ni moom moo di région yi chauffeurs yi ñoo ngi doon kaas ci kaw keneen ki ci topp nekk maître Malick Sall ministre de la justice jamono ji nga xamante ni nag wàllum magistrature bi yëngu na lool am na ay problème yu fa nekk ah, keneen ki di Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action nag depuis ba jàngoro bi duggee ba tey mënoo xëy ah, journée la mu déggoo ñu naan Diouf Sarr Diouf Sarr na def lii wala na def laa ah, keneen ki nekk Omar Youm ministre des transports terrestres sans oublier li nga xamante ni moom moo di wàllum éducation bi ñu ciy fekk ki nga xamante ni moom moo di Mamadou la ministre yooyu daal jamono ji seen saage dafa bëri bu journal bi xëy daal di koy boole ci à la daal di koy boole ci à la une bi yaakaar naa ni ñi ñu boole ci à la une bi ñoom ñooy réew mi ndaxte ku ci nekk rek yaa ngi diriger facteur boo xamante ne ni bu sooxewee réew mi day sooxe éducation bi bu sooxewee xale yi dañuy sooxe paj mi bu sooxewee wér-gu-yaram bu amulee fu ñu jëm ki nga xamante ni moom moo géré lépp loo xamante ne ni mi ngi ci réew mi ñu ngi ci foofu noonu parce que dafa nekk facteur boo xamante ni dañ leen war a jox cër bu baax a baax a baax parce que li ñu teg seen ndodd dafa war a woyof ndax bu woyofulee bu daanoo rek àdduna moom mooy daanu rawatina Sénégal kon nañu leen jox cër bi nga xamante ni moom la ñu yelloo ñu nangul leen li nga xamante ni moom mooy ndombal bi ñu leen taqal parce que ndomba yi ñu leen taqal du ñëpp la ñu koy taqal kon ku ñu ko taqal rek am na loo tax ñu taqal la ko nañ leen respecté jox leen cër lépp lu ñu digal ñu def ko parce que ñoom seen xëy ak seen gontu seen yeewu ak seen tëdd yëpp ci ñun la kon nañ leen jox cër. noonu la demee nag bu ko defee dañuy daal di dugg ci wàllum sport laataa ñuy xuus suñ ci suñu ay euh, top des informations sport yi li ci gën a fës bokk na ci match bi doxoon démb ci diggante na ak euh, Paris Saint-Germain gis nañu nag match bi nekkoon match bu tàng lool euh, d'ailleurs sax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di supporters yi ñoom ñoo gënoon a dund match bi que ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci biir terrain bi waaye gis nañu ni mu jeexee Bayern moom moo dóor 1-0 Paris daal di nay xamante ni moo di coupe bi waaye information bi ci mooy que ni kii ni di Thiago Silva day daal di quitter équipe bu Paris Saint-Germain d' yi nga xamante ne ni moom doomu Brésil mi ngi ci équipe boobu ca Paris Saint-Germain waaye démb finalu démb bi c' était une finale historique ndaxte boo xoolee Paris Saint-Germain ci histoire am mi ngi doog a dem final bu ko jëloon day nekk loo xamante ne dañ koy bind ci histoire yi waaye Bayern Munich dafa def loo xamante ni te mu sa am ku ku def compétition lëmb amoo ci benn defet ba ba ngay jël coupe amoo ci defet mu ngi doog a dafa nekk loo xamante ne ni euh, demb lu waaye doon jaay rek da doon mën a lamb moo tax ñu football 0-0 premier mi-temps dem ba deuxième mi ki nga xamante ni moom mooy commande daal di rey ay doomu réewam ndax moom français la rey équipe bu France bi mu nekk match boo xamante ni ñu bari ñu ci doon xaar Neymar ñu ci doon xaar Mbappé mais boo waree ñàkk doo gis bay xool. moo tax dañ leen di ñaanal rek déwén incha allah ñu ñëwaat Thiago Silva tamit feneen fu mu décidé pour dem bu fa demee suñu borom ubbi fa ay buntu wërsëgam. en tout cas de mérité wuñu ndax dem wane nañ seen bopp ci digg terrain bi ku ci nekk la nga indaale woon joxe nga ko waaye nag compétition moo demee noonu faw am ku gagné faw am euh, ku perte di leen félicité waat en encore une fois te di leen encouragé waaye ba tey ci wàllum sport dañuy ñëw ci wàllum euh, làmb euh, gis nañu nag combat yi nga xamante ne ñoom ñoo fi jotoon na taxaw semaine passée defoon nañ ko à la une des journaux daal ni malgré coow bi nga xamante ni combat yi am na ko amul kenn ci mbër yi koo xamante ni rek jotagum nga avance loolu nekkoon porte d'ouverture pour yeneen promoteurs yi ñu mën a nangu combat yi maanaam daal ñu suufu promoteur euh, bi jotoon na waxtaane loolu Euh, ba tax na nag tey li nga xamante ni daal dinañ koy euh, fësal euh, ci journal suñu làmb mooy que ni Pape Thialis mi ngi dëggalaat bu baax a baax que ni avancé na bu baax a baax ci combat yooyee kii nii di dëggal sax yëkkati na kàddu yi wax ko nee na malgré li nga xamante ni moom moo xew ñëpp di ko wax beneen promoteur bu dikkoon indi lu toll ci un milliard de francs CFA du tax mu daal di trahir ki nga xamante ni moom moo di Pape Thialis. Pape Thialis Faye moom moo tëggoon combat bi doxoon ci diggante Boy Niang numéro 2 ak Sa kon kóllëre mën naa dox ci diggante Pape Thialis Faye ak Dégol ndax Dégol moom mooy wayjur bu góor bu Boy Niang ñenn ñi ñu ngi ci làmb dañuy baay ba promoteur tëgg ñu daal di juwaat ci suuf pour jéem a yàq te duñu ay promoteur nañu bàyyi loolu Pape Thialis nit la koo xamante ne ni dafa ñëw pour suqali làmb dafa ñëw pour dimbali jeunesse bi boo xoolee tafaatin bi mu tëgg pour mu amoon combat dafa doon jafe mu daal di ciy teg booy Niang te dina am yeneen xale yoo xamante ne dina leen tëgg te fas yéenewul yem ci grand combat boobu rek ci saison bi moom ak yeneen i promoteur ñi ngi fi ku ci mel ni Gaston Meng ku ci mel ni Luc Nicolas ku ci mel ni ñeneen ak ñeneen ñi ngi ci làmb ji làmb dafa nekk sport boo xamante ne nii buñ ci jàppul bu ñu ko xajamal parce que c'est le sport c'est le boo xamante ne bu amee man dinaa kontaan sama yaay dina kontaan sama papa dina kontaan ak ñi ñuy seetaan yëpp parce que sport la boo xamante ne nii da ngay xool rek am koo faral bu dul sa koñ bu dul sa waa gox sa dëkk la kon nañu ko jox cër xam ne làmb rek moom mooy gagné nañu respecté làmb ji état dugal loxoom ci làmb stade yi nga xamante ne ni ci dañuy bëree yenn grand combat yi ñu defar ko bu ci mel ni stade Demba Diop moom moo mën a recevoir yenn grand combat yi arène nationale bi c'est bien beau bijou la boo xamante ni dañu ciy kontaan trop mais am na ay combat yu fa xajul lañ ñu defaral stade Demba Diop bu ko defaree amul mbër buy bëreeg beneen mbër te doo fa xaj yàlla defarul loolu mbër yëpp dañ fay xaj incha allahu rabbi euh, noonu la demee yegg si nañ ca tappaandaw ga dañ leen di jox li nga xamante ne moom moo di seen top des informations yegsi nañoo ci cappaandaw ga dañ leen di daal di jox rek li nga xamante ni moom moo di suñu top des informations de ce jour benn bokk na euh, ci waay ji nga xamante ni moom moo toll ci 43 ans ñu daal di koy fekk mu ñàkk bakkanam ci benn auberge bu nekkoon ca diwaanu Malika d'après information yi nga xamante ni mujj nañ ko ci am mooy que ni euh, soxna si mu fa nekkaloon euh, vendredi la ñu yegsi ca boobee auberge fanaan fa ba samedi jot soxna si génn dem jëndi ay fruits ba mu dikkaatee la ko fekk mu daal di tëdd jaaxaan mu woote arrêté woon fekk na mu trop tard mu ñàkkoon bakkanam ba pare ñoo ngi wëyal enquête bi euh, dinañ ci dellu siwaat nag. di ko ñaanal suñu borom woyofal suuf ci kawam jéggal ko ay baakaaram ndaxte ku jiitu rek moo am ndax ñun ñëpp dañuy dem kon nañu ñaanal ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiitu. li nga xamante ne nag xew na foofu noonu ci diwaanu Malika ak lu mën a xew ku jigéen ki ñu bari duñu ko ci seetal parce que moom la nekkaloon ci guddi vendredi bi ñu xëy samedi mu ñàkk bakkanam dem na jënd ji li nga xamante ne moom mooy ay fruits yu ñëw fekk mu ñàkk bakkanam waaye leneen li nga xamante ne ni xew na fa ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkee ci alentour boobu noonu nanguwuñu wala accepté wuñu auberge bi foofu parce que nee nañu seen réew baaxoowul ak ay auberge waaye nañu xoolaat bu baax baax a baax yenn place yi fu ñu koy def ak nu ñu koy defee li tax mu ñàkk bakkanam xamuñu ko nañu ko bàyyee ak yoon mu def ci liggéeyam ba keroog ñu ci am ay yeneen i leeral incha allahu rabbi. Ah, bi nga xamante ni moom moo ca topp nag bokk na ci kaw kawteef bi nga xamante ni moom moo xew fële na la ca diwaanu Tiwaawoon ah, Cheikh Kane lay wuyoo moom soxnaam ak doomam ñëpp la ñu daal di fekk ñu daal di ñàkk seen mbakkan ñii nee nañu moom moo leen rey ba pare ah, daal di xaru ñeneen ñi nag nee nañu accident la lu ci mënti am police daal di nay ubbi enquête bi. loolu itamit beneen yëf la boo xamante ni ci loxo yoon lay tegu li ma daan dégg wala ma ko daan gis ci tubaab bi laa commencé gis ndaxte boo xoolee am na ci journal bu bind mu ni dafa ray jabaram rey doomam ba pare moom mu rey boppam yaakaar naa ne doon na loo xamante ne ni euh, nañu ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ki nga xamante ni moom moo ray boppam rey doomam rey jabaram léegi yow kan ngay teg loxo kan ngay enquête dina nekk loo xamante ni dina doy waar torop waaye ñu ñaax rek ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo suñu ay njoñ ñu ñuy nekkal muy man muy yow muy keneen ak keneen ab réew boo ci nekkee fexee la bokk ci ñuy jéem a développer réew mi fexee nga nga bokk ci ñi nga xamante ne ni ëllëg dina nga bokk ci ñu ñuy ñee wala ñu ñuy naw la tax mu def ko wala sax bu dee defu ko la tax loolu am ñu jëm ko daw jëm ko moytu parce que ala kulli dañuy nettali kii day wax kii day wax say cër bu ci nekk day wax kon na fexe nettali bi nice nettali dafa war a rafet waaye dafa war a neex kon nettali dafa war a rafet ci ñëpp yaakaar naa ne tey leerale loolu rek la woon. loolu la ba tax na dañ koy daal di tëjee rek bilan wu jàngoroy coronavirus bi tey jii nii ci altine bi 24 euh, août 2020 ginnaaw ba ñu amalee lu tollu ci 1112 euh, test euh, gis nañ ni lu toll ci 64 ci ñoom ñoo daal di amee jàngoroy coronavirus bi mu nekk 36 cas contact. 28 cas communautaires 140 euh, personnes nag daal dinañ leen di saytu ba seen euh, wér-gu-yaram daal di mucc ayib tey jii nii ci bés bi waaye bu ñu defee bilan bi depuis le 2 mars ba suñu joonu yàlla tey jii gis nañu lu toll ci 13013 euh, personnes daal di amee jàngoro yu coronavirus ci réew réewum Sénégal 8595 personnes yoo xamante ni seen wérgu seen wér-gu-yaram mucc naa ayib maanaam daal wér nañu lu toll ci 272 personnes daal di ciy génnee àdduna lu toll tamit ci 4100 45 personnes euh, ñoo ngi sous traitement di ñaan yàlla rek naka rek tiis bi nga xamante ni euh, jàngoroy coronavirus mi ngi wéeru di ñu ko teg suñu borom daal di ko fi yemale euh, di maste wu ñu fi jógee tey ñaaxaat ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi des. allahuma amin nañu takk masque yi nañ toog suñu biir ay kër ku ci am lu urgent looy doxi nga doxi ko ba pare sa masque na nekk ca kaw takk ko mu wër bakkan bi ak gémmiñ gi ndax nekk na loo xamante ne ni boo ko defee dina la muccal yow non seulement dina muccal ka ngay fekk ji. man li ma ci lancé rek mooy message bi nga xamante ne nii keroog gis nañu ko feebar bi ay ndaw la gën a dal jeunes yi la gën a dal waaye mag ñi lay gën a rey cela veut dire ko kon li mu mën ci mag ñi mënu ko ci ndaw ñi waaye ndaw ñi ñoo ko yóbbul mag ñi kon nañu toog suñu biir ay kër ku ci nekk ak ni maam neexee ci xol ngay nekk ak sa maam boo ko toogee sa kër wala nga jëli ko ñëw jox ko ko ah mu ñaaw mu naam ci kër ga nañ toog suñu biir ay kër mbokk yi xam naa ne tàggatoo leneen li nga xamante ne dinaa ko ci doole rek mooy ñu bàyyi xel détenu yi parce que il n'est pas dit ñun ñoo baax ñoom ñoo bon prison nattu la rek bu la fa yàlla bëggee yóbbu da nga fay dem bu fekkee bind na ko ci sa nëbsu bii da ngay dem bu ko fa bindul doo dem ñu tëdd si loolu hôpitaux yi suñu borom may leen wérgu yaram fëgg seen bopp ba ñu dellu si waat parce que ñoom fii lañ bokk. kon ah? nañ def nañ ko daan defee rek nañ def nañ ko daan defee rek. nañ ko daan defee. yow de xasujo saa yu ñu paree suñu émission. damay sangu